en route euh, vers les élections fii ci Baol Times euh, TV di recevoir madame euh, Penda Cissé di présidente mouvement guddi guddi Baol soxna Penda Cissé Baol Times TV mi ngi lay nuyu. Alex maa lay nuyu di di la ziar. Mhm. di nuyu képp koo xam ne yaa ngi nekk di yëngu ci Baol Times TV. Mhm. di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax a baax macha allah. la doon guddi guddi Baol. Mhm. lan lay tontu. mooy. en ah, définitive mooy. Mhm. bawal rek. Mhm. seulement bawal. Mhm. loolu la daal. guddi guddi bawal. mooy lu ci mën a xew rek. ak lu mu mën di doon rek. bawal rek. pourquoi choix moo boobu. choix wu moo bii mooy dañoo nekk ay nit ñoo xam ni dañoo juddoo bawal yaroo bawal. màggee yi peut-être am na benn moment ku ci ne ci ñun. xëy na génnoon nga pour dem ci leneen. pour jàngi wala leneen. de toute façon. nous sommes des natifs de Bawol. Mhm. te Bawol rek ñor la. Mhm. moo tax ñu jël suñu mouvement. Mhm. tuddee guddi guddi Bawol. guddi guddi Bawol alors euh, lan mooy tax bu guddi guddi Bawol jóg lan si jàppale ci ban si lan ngeen di yëngu guddi guddi. waaw donc bu guddi guddi Bawol boo xam ne dañu dama ci xalaat personnellement. dama ci xalaat ma ni damay mettre sur pied un mouvement guddi guddi Bawol. ba ma koy def nag la taxoon ma di ko def mooy. un mouvement boo xam ne objectif premier. mooy en majorité ci groupe ci mouvement bi dañu nekk ay jigéen. Hmm. dañu nekk ay jigéen c'est vrai que am nañu ay quelques góor yu ci nekk mais en majorité ay jigéen lañu. Hmm. te dañu ni ñun en tant que jigéen nekk ci dëkk bi nekk Bawol. Hmm. xam li fii xew. xam fan lay sooxee xam fan lay mettee. dañu ni ñun en tant que ay jigéen dañuy jóg. dugal suñu bopp ci développement Diourbel. parce que ñi ngi fi xam nañ di fi ne. Mhm. xam nañ li nga xam ne nii doxul. Mhm. xam nañ fan nañ war a jubbantee xam nañ fan nañ war a jooyantee. Mhm. en en xam nañ lan mooy metti ci bawol mi ne ñun en tant que jigéenu bawol dañ ciy dox suñu waa kon mouvement bi jigéen rek la soxla soxlawul jigéen si dama ko wax naa ko sànq samay wax mais en majorité en majorité dañu constitué de jigéen. Mhm. bu ñu demee ba ci biir di nga xam mhm. lan moo tax ma ni la en majorité dañu jigéen. bu ñu doon laaj lan mooy euh, moo di pléwu Jurbel maanaam góomu njaareem looy tontu. góomu Jurbel defe naa ni comme ni ñu koy waxee ne Jurbel moom foo laal bi di metti. Mhm. te sur le plan politique. damay leeral que ni tamit nous sommes un mouvement politique. mais dañuy def la politique autrement. ok mais fii metti ci Jurbel. ku ne xam na ko. sur le mm-hmm. plan politique. Mm-hmm. dama naan Diourbel dafa manqué lu bari. Mm-hmm. parce que tamit dañ koy wax te dee. on a des leaders politiques yoo xam ni. taxawaay ba ñu war a taxawee dëgg dëgg dëgg ci Bawol ñu ko. kon loolu defe naa ni fuy metti la sur le plan social. ça ne marche pas. donc defe naa ni en daal. Diourbel nekk na dëkk boo xam ne nii jigéen ñi ñu ngi jooy. góor ñi ñu ngi jooy. Mhm. ndaw yi ñu ngi jooy. Mhm. ouvrier yi ñu ngi jooy. Mhm. ñëpp ñu ngi jooy. donc dama naan globalement ci Diourbel. liy metti dafay mettee fépp. ok pour faj plaie boobu maanaam liy metti ndax ngeen ko nar a faje suñu xamee ne mouvement la amu leen partenaire je sais pas. waaw waaw ñun nag. mouvement lañ boo xam ni fii may wax ak yow tembe on vole de nos propres ailes. lépp lu ñuy def ba suñu lancement bi nga xam ne le 6 lañ ko nar a def. dañ cee taxaw. jël ci suñu poche. di ci def. parce que dañuy bañ kat ëllëg ak si biir. ñu ne nangam ak nangam ci guddi bu guddi bawal. te it nag nañ ko bëgg a faje dëgg dëgg dëgg. mooy taxaw ci terrain bi. ci terrain politique bi. ci terrain social bi. du ñu ni li du ñu ni kat kenn du fi ne. Hmm. mais dañu ni lu bari dafa manqué. te dañoo taxaw nag ku taxaw di def ñun guddi guddi bal tamit dañoo fas yéene taxaw di def. Mhm. ci seen wet comme ñëpp. Mhm. balaa ñuy ñëw mu di investiture yu jëm ci eh, local yi ñuy séntu vingt deux vingt trois janvier ah. deux mille vingt deux. Mhm. Euh, noo gisee choix candidat yi. choix yi moom ni ma gisee mooy. mouvance présidentielle. man damay jàpp ni bu ñu demee rek ba njiitum réew mi war a mën a taxaw di wàcc. di ñu tànnal. déjà ñun suñu defet lañu. non seulement defetu ñi nga xam ne ñoo takk ndombay tànk politique yi mhm. mais toute la population de Diourbel mhm. du Bawol seen defet la mhm. parce que ñàkk fayda ak matadi ak wayadi mënta weesu ngeen ni da ngeen a bokk fu ngeen jëm bokk bëgg-bëgg bëggal kenn ndam muy président de la république Macky ba pare moom ci boppam mu bàyyi la muy def di jël benn temps sax Mhm. pour naan naa tànn ki wala ma naa tànn kee mhm. dèjà loolu ba mu amee rek ñun dañoo jàpp ni loolu defetu njaareem la mhm. te defetu képp ku fi takk ma ci politique la yow guddi guddi bawul lan mooy taxawaayam ci loolu taxawaayam ci politique bi mooy dèjà ñoo ngi dem ci suñu journée de lancement ñu paree dañuy def taxaw seetlu guddi guddi bawol mën nañoo jàpp ni mouvement wu fippu la parce que dañoo taxaw pour leeral surtout jigéen ñi. Mm. parce que dañu seetli euh, ci ci politique jigéen ñi ci Jurbel mm-hmm. dañ leen di nax tout le temps. Mm-hmm. dañ leen di mbubboo dañ leen di nax dañuy jël seen ay tur. Mm-hmm. ak seen ay slogan. di ko liggéeyee. ah. di dem jusqu'au niveau jusqu'au plus haut niveau di fa dem di wuti. di lekk di leen bàyyi. di leen naxee ay genre financement yoo xam ne. Mm-hmm. en fin de compte kay financé. Mm-hmm. ca boppam la lépp di dellusi mm-hmm. dañ leen di solal ay ay ay mbubu. di leen tàccloo di leen feccloo. ut ay oto di leen ca def di leen yóbbu te finalement bu ñuy dem sax duñu am lu leen yóbbu. di leen nax ci kaay leen ñu jàppale leen. alors que ka leen koy wax ak ñu leen koy wax ñëpp seen i bopp la ñuy jàppale. donc ñun. on a créé un ras le Mhm. un yanaamaar boo xam ni. Mhm. benn jigéen waxloo ñu mais ñun ñoo def taxaw seetlu. Mhm. ni ñun ñoom suñuy naataangoo lañu. suñuy rakk ngi ci biir suñuy mag ngi ci biir suñuy yaay ñoo ngi ci biir ñooñu. te ñun suñu devoir. mooy yee leen. dañoo toll nag ci conscientiser les femmes. xoolal ñun guddi guddi baal même bu jaree def porte à porte dañ koy def pour xamal jigéen ñi ni ngi leen di nax jóg leen ci loolu. jàll leen à un niveau supérieur xam leen seen bopp. jigéen. ak ndaw ñoom ñoo yor électorat ci réew mi mhm. seen place bi ñu moom bi ñu yelloo dañ leen ko war a jox mhm. ci loolu la dox mhm. yéen ngi bàyyi xel euh, ci seen émission en route euh, vers les locales fii ci Baol Times euh, TV di leen rappelé ne mi ngi dalal tey soxna pende Cissé di présidente mouvement guddi guddi Baol ku xam soxna Penda Cissé xam ne elle était trop proche de Fatou Diané lu xew kooku moom ba ma ci laajee damay sawar xamul lu tax Fatiane dafa ñëw defe naa c'était en 2018 ci Diourbel mu wooñu ñun ñëpp ah, ci benn plateforme bu tudd émergence au féminin ñu di ci liggéey di ci dox xam nga loolu lu tax ñu nangu ko dafa ñoo fekk ñu def plus de quinze ans dans le développement à travers suñu comité de scolarisation des fii mmh. mais à travers d'autres comités Mm-hmm. yoo xam ne dañ ca nekkoon mm-hmm. te ñun nag wax dëgg développement Diourbel rek moo ñu ma a ñor mm-hmm. li sëñ Saliou Mbacke doon wax rek ku mën nax ni eh, ku mën nax ci mbuur ma nangu donc ñun maanaam mën ngaa ñëw bëgg ñoo nax ci dëkk bi dans un premier temps dañuy nangu mais dafuñu gën a jàpp ñu ba di dugg ci loo xam ne nii dañ koy defaral benn nit ñu duñu dox ci lenn loo xam ni dañ koy defar pour benn nit mu cay jariñoo ña ca des di toog duñu ko def Mhm. et c' est ça qui nous est ak Fatou Diané. Mhm. ñu copte ñu nekk ak moom sur le terrain fu ne taxawal nañ fa Fatou mhm. ni leen kii kat. ndaw la dafa ñëw ci dëkk bi pour liggéey. dem nañ ci ay nit ñoo xam dañ ñu ne ñun de xamuñu Fatou Diané yéen lañ xam. yéen nag loo leen ñu dugal ñu dugg ci. on a cheminé ensemble depuis. man tey jii lu ma am. lu ma am. ci dëkk bi dañuy naan gees ni lii kat Fatou Diané moo ko defal benn. Hmm. wallaay Azim musuma defal dara. Hmm. musuma defal dara. Hmm. te damay yaakaar ni nit nag boo nekkee ca mbir bi ca dox. au moins boo gestoo yow ak sa ña nga boot. parce que nous nous sommes des actrices de développement. on a des centaines de personnes derrière nous. kon nag nit ki boo àndeek moom di liggéey ak moom. day am loo xam ne war na la caa gestu. mais ki nga gis muy dem di wéy à chaque fois muy progresser progression boobu lu ko waral yow jógoo ca. ñun lu foddaane am ci Diourbel tey et je pèse bien mais mots man waxaluma kenn mais man Penda Cissé damay jàpp ne jóguma ca mhm. parce que j'ai toujours été avec elle mhm. dans tous ces combats mhm. et je prends à témoin le département de Diourbel parce que ñëpp ko teewe yow teewe nga ko ñi fi nekk ñëpp teewe nañ ko kon bu ñu ba ci biir leneen di am ay promotion di am lépp di am moom muy doxal mbiram mu leer na ni yow dafa jóg pour doxal mbiram bëggul mbiru ñeneen ña dox da nga koy Mm-hmm. justement madame Penda Cissé ah. euh, da ngeen ne sànq da ngeen def taxaw seetlu ba créer mouvement guddi guddi Bawol ah. ba majeure partie bi euh, ay jigéen lañu est-ce que mun nañ jàpp ne kon euh, quatre-vingt-dix quatre-vingt-quinze pour cent si émergence lañ jóge wala fu ne lañ jóge non non non non du mm-hmm. tout mm-hmm. émergence au féminin defe naa ni bu dul man man Penda gisuma keneen ku ci ci Fatou Diagne man rek man maa ci nekkoon ci Fatou Diagne. ok le 6 ngay taxawal. mouvement bi lancement guddi euh, guddi Bawol lu fay xew. li fay xew mooy dañu invité le maximum de personnes. Mhm. surtout le maximum de femmes. Mm pour jàllale benn communication. Mhm. ban lay doon. communication boo xam ni mooy jigéen ñi xam leen seen bopp. Mhm. maanaam dafa jot nax yi ñu leen di nax mu arrêté. communication bi. Hmm. loolu kese la. Hmm. c'est une communication boo xam ni danaan les leaders politiques defaruwaat leen. Hmm. parce que man mënuma comprendre au niveau local ñu ciy def ay activités ñu jëm vers des élections municipales. te da lépp mënta concentré wu ci Barro gis naa fi la la la fameuse de Xelkom bâche. man dama jàpp ni l'expertise local ah le potentiel local mm. moom moo war a prévoir valoir fii ci Bawol mm. Bawol lañu wax ah te fii ku fi nekk maire nekkoo maire fenn fu dul maire Bawol mm-hmm. donc boo cay dox ak di ca jàpp mm-hmm. na doon on a le potentiel mm-hmm. fii loo bëgg ci Jurbel ci mu wàllu artiste wala loo mënti doon ci looy dox mi ngi fii mais lan moo tax ñu koy jëgaani complexe d'infériorité boobu ak jëgaani googu ak xeeb sa bopp tuutal sa bopp tant que jógu fii dara du fi dox. et ce mm-hmm. sera ñu wax leen ko en face. Mm-hmm. parce que ñun lu ñu ragal a wax toog fa di jooy est-ce que le 6 euh, Penda Cissé certains politiciens seront au rendez-vous. non mais on a ratissé large. Mm-hmm. dañu ni guddi guddi bawal pour ñëpp la. te leneen lañ ca yokk mooy beddiwuñu kenn. boddiwuñu kenn ci guddi guddi gawal. tey jii kum ci mën a doon même les leaders ñii may wax. kuñ ci gis. nga nekk ci benn action boo xam ni ñun ñëpp dañ ci gis seen bopp. boo ñu woowee ñun guddi guddi jabar dañ koy mm-hmm. ànd ak yow dox ko mm-hmm. mais xam nga ci lan lañ doxul mm-hmm. ci tappale ak naafeq ak wuruj loolu lañ doxul guddi guddi ba instant bi ndax am ngeen seen choix ne kii diw la ñu pointé doigt accusateur ànd ak moom sa élection parce que c'est un mouvement qui est politique c'est un mouvement qui est politique vas mais pour dire vrai ñu kenn en repérage. seen xel jàppul si kenn dañuy wan ñu gis rek. Mhm. ndax lañ leen di wane yéen. nit ñuy wane. Mhm. mooy ku gis guddi guddi ba war ba nga xam ni euh, mouvement bi doy na la pour liggéey yow. Mhm. nga ñëw toog ñu toog autour du parce que du man de. y' a beaucoup de femmes ak guddi guddi bawal. on est structuré. on a un bureau on a tout. on a des femmes on a des jeunes. même ay ASC ñëw nañ adhéré ci guddi guddi bawal. parce que ñoom it dañoo am problème. pas plus tard que bërki démb Ndeye Marie Hmm. mooy responsable des femmes di hmm. chargé de la communication hmm. damaa dem këram fekk fa ay xale ñu yor seen leket di ket pour am match ba di heures amaguñu cinq cent francs te Thierno ñi defe naa leader politique ña nga fa de ñun ñoo ñëw guddi go guddi ba bien que yoruñu dara ñoo yëkkati suñu ñeenti ju jox leen seddal ay ndox jox leen ñu ñaan ba sonn ni ñu à partir de maintenant adhéré nañ ci guddi guddi ba parce que gisuñu lu ko tane ci ñun kon pour te dire que on on ratisse large. Mhm. bàyyiwuñu benn leader politique ci suñu activité. Mhm. te bu ñu la gisee li li ngay def doy ñu dañuy ñëw. Mhm. ànd ci ak yow. mais tappalewuñu wurujuñu man li ma yor li ma yor guddi guddi bawol nga xam ni man pend maa ko créé. seet ñi ma neex seen jikko doy ma ma dugal leen ci xam nga lu tax. man bu may ànd damay ànd ak koo xam ne loxoom dafa set. parce que ku ne xam na ma ci dëkk bi mën naa toog. ci plateau bi pendant vingt jours. Mhm. wala un mois di wax. Mhm. li may wax kenn du ko dindi. Mhm. parce que gisuñu ma mën naa fekk. joxu ñu ma financement ma lekk. naxuma kenn waruma kenn. sama salaire bu ndaw bi ma am. ci laay dimbalee man. kon loolu moo tax. dañuy ratisser large. beddiwuñu kenn bàyyiwuñu kenn ku ñu gis nga xam ni mën nga ak liggéey ak ñun. ci dëgg ak fulla ak fayda. ñu def ko boo ko mënut. on va continuer notre petit bonhomme de chemin de, de chemin oh. jëm ci leneen mm-hmm. parce que on va vers des échéances beaucoup plus importantes que celle-ci mm-hmm. mm-hmm. te dañ cee fas yéene engagé wu nag moom saf sàpp incha allah revenons un peu en arrière soxna Penda Cissé guddi guddi Bawol majeure parti bi c'est des femmes c'est des alors naka la góor def pour dugg non c'est-à-dire man je suis féministe duma ko dëbb man Penda Cissé féministe la te boo gisee ma taxawal guddi guddi bawal maanaam jigéen ñi métitu jigéen ñi moo tax mais exclure ma góor ñi parce que des hommes se sont levés spontanément mhm. pour ñëw ni ñu ñun ñooy doon seen ay jànni mhm. xam nga loolu duñu ko bañ mhm. duñu ko bañ defe naa ni entreprise boo ci gis s'il y a des soo gestee aussi gis ay ay góor même su fekkee ni bariwuñ daf ciy baax kon noonu la demee mais dëgg-dëggi guddi guddi bawal moom dama koy xalaat dama ni jigéen ñi dañoo war a fippu. Mhm. dañoo war a bañ. Mhm. li ñuy jànkoonteel dafa war a jeex. Mhm. te maanaam defuñu prise de conscience xalaatuñu. te damaa yaakaar ni guddi guddi bawol moo ñëw pour changer. seen mentalité. xalaat loo leen d'une autre façon. loolu la ñu jàpp ñun ci guddi guddi bawol. ku xam Penda Cissé xam ne. Euh, jàppale jigéen moo ko ñor euh, plus précisément jigéen xale yi jigéen yi nekk ci école bi euh, ubbi te te ko l'école bi dugg nañ ci xuus si ay jéego mm. ndax guddi guddi bawal lu tax nga fàtte xale yi xale yu waaw ci l'école bi su xëyee mm-hmm. man ñoom laay fanaanu mm-hmm. ñoom Mhm. ñoom laay fanaane chaque matin mhm. surtout moment bi nga xam ne c'est le moment des inscriptions mhm. c'est le moment de remettre quelques élèves dans les écoles ñu ñu dàq ak yooyu sama première activité le matin mën naa sax bañ a jaar sama bureau sama première activité mooy cas yi nga xam ne dañ ma leen jox muy des filles qui doivent être à l'école qui ont leur place à l'école dem lijjanti leen ba pare di def ci journée bi ma dóor ko ci guddi guddi ba li may tàggoo Penda li may tàggoo mooy on appelle toute la population de à ce rendez-vous le 6 novembre incha allah. Mhm. terrain des sapeurs pompiers. Mhm. di ngeen fa dégg lu am solo parce que am lu tax ñu dañoo ragalul. Mhm. guddi guddi ga bawal yàlla def na jigéen ña ca ne man maa ci gën a ragal. kon xam nga ni ko ragal amu jax te hmm. dinañ waxante ak nit ñi ak hmm. askan bi hmm. lu leer naññ loo xam ni ñu ci jógee nag tout juste après on va élaborer un plan d'action boo xam ni ça va des actions concrètes sur le terrain ñu xam ni guddi guddi bawal dafa jël décision jouer sa partition pour le développement de Diourbel te ku baax ku bëgg ànd ci ak ñun rek dañ ci ànd ak yow mais au préalable wax naa la lan mooy suñu ay conditions. Hmm. donc rendez-vous le 6 incha allah. Hmm. au terrain des sapeurs. fii si Baol Times euh, TV doon euh, dalal euh, soxna Penda Cissé di présidente mouvement guddi guddi Baol Penda Cissé Baol TV mi ngi lay nuyu.